ay mbokk yi ñu tok leen ñu ngi tok ak ko xamanteni c'est un grand champion wax naa leen ko sank muy jeli bosson médaille bu nek indil nako ci biir réew mi nam lu nek indil nako ci biir réew mi waye papa euh, damay dégg souvent ndeysaan boy bambal yàlla nako yalla yàlla mu doon wax naan combat yu bari amna ci yo xamne yi ne lako Gàmbi yi fenen waye légui ñu gis mbeur yo xamanteni dañuy dem ba nek roi des arènes nek champion ñu Ndakaar. waaw xam nga lolu ñaka gëm sa bop rek la parce que man mi euh, mbeur mu ñuy wax euh, obligé ak bërëjë naa ñu moom bi fekk fa jalang fekk jalang moomu nga xam ni champion bu bu bu bëri doole te mën a bëri moom euh, ak ayam heureusement dajewuñu bi mais mbër bu ñuy wax obligé moo ko fa jële woon obligé moomu dafa bëre ak benn mbër bu ñuy wax Abu Jokkaan àndoon ak ñoom Balla Gaye yàlla leen yàlla yërëm dem bëre ji foofu obligé busulu ko loos fi damm keroog néew la indi Sénégal ma xam ni kii te xamoon naa ko sama booy la woon ma xam ni kii su ma demee ni maa ngi bëri ji obligé alors ndakaaru danañ ci commencé ay commentaires yi ñi koy yëkk na xam nga rek samay mbokk ainsi de suite ma bàyyi benn bés rek ma taal sama to yoxoo si dem Gàmbi ñëw ci féeri bi laaj ko laaj ku naan Omar Bétikan Omar Bétikan moom mu tëggoon combat obligé ak euh, Abu Jokaan bi nga xam ni fa la faatoo ma ne ko Sénégal laa jóge de obligé ma tax a jóg mu ne ma nga ni ma na ko maa la ko wax mu ne ma ban hôtel laa lay dal ma ne ko seetal boo may dalal mu ne ma dinaa la dalal Adonis ma na ko Adonis dafa jege port bi yóbbu ma Apollo mu daal di ma yóbbu Apollo ni ma ñeen nag seeni combat yi ngeen di bëri fële ay 1 million 2 million ñun amuñu ko mais mën naa la fay 500000 ma wax ko léegi ci rajo bi ma ne leen wax la mais dafa kon ni leen Pape Diop a ci dëkk bi obligé la soxla ñëw na taxawal naa combat bi. Sérékonda la nit ñi jóge wut si Banjul ma seet si hôtel yàlla dogal làmb jëkk rek Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ma tout seul moom mi ma daan tout seul fii naka jëkk ma daal di jël combat ba nga xam ne ñaari yoon nga koy bëri samedi ak dimanche ma ñëw daan ko samedi daan ko dimanche ñu préparé lu ma ñibbi senegal kon am naa yaakaar ci ne mbër yi waroon nañuy déplacé wu xoolal man dem naa ba bari ji dëkk bu ñu naan Yougoslavie ba ma vous Yougoslavie ci dëkk bi der la té dañ lay diiw di li lañ lay ba nga nga ci réformer waat la papa ndax tamit CNG war na réformer waat li nga modi Nous lamb buñ ko wax ay nit ñu fay leen ay millions ñu dem préparer pendant un an ñi pendant deux ans mbili nous ñu ne diiw def na quatre wala décision arbitrale wala avertissement lamb ji jéxé na par avertissement lolu metti na trop wa lamb xam nga du dëgg du yoon xam nga loolu euh, yooyu texte man daf maa jaaxal mbër def 4 appuis rek nga dalini di bëre ba wala àggagul sa 4 appuis ñu ne mi ngi ci 3 appuis way nga ñëw ko léewtoo ñaar yoon ñett yoon yëg ci kaw euh, saaku yi ñu dellu si leen ne avertissement 5 avertissement lamb ji jeex na waaye ñi fay seen xaalis nag nekk ci ci ci muy ay millions ñu a gis jël lamb ji war nañ ko seetaat de lamb ji lu jara a la.

diggaat ñu arène nationale dindi 50 millions may ma jox ko président des anciens gloires manga de booba par booba euh, ci anciens gloires la laa bokk ñu daal di jóge ci lolu président Macky Sall ñëw au pouvoir ñu toog ak mom waxu ñu ak mom dara lu Matar Ba ministre bu baax bi dégg nako ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu jog rek ni arène nationale bi damay euh, def premier euh, pierre ñu and ak mom mu tek premier pierre bi ñu naan déeta waaye mu génne plus de trente cinq millions euh, trente cinq milliards daal di koy teg ci taabal ji ñu defaral ñu arène nationale mu pare ñu ànd inauguré ko kon le président Macky Sall ku wax ni def fi dara yaa ngi wax li la neex mais ku xool Dakar bi ak Sénégal ba bi mu jëlee nguur gi ak léegi xam ne am na lu mu fi def loo bañ bañ nag yombat bu ko bañal mën a dawam kon li wóor te leer mooy le président Macky Sall maa ngi koy félicité di ko gërëm. xoolal arena bi bi mu defar xoolal dégg ko stade bi mu defal moo tax stade bi su ko xoolee rek sama xol dem ci équipe nationale sama xel dem ci égyptiens yi fara football si sama xel dem ci ba ma demee Égypte doon champion d'Afrique kon xam champion d'Afrique bi du rek football lañ ko am am nañ ko champion d'Afrique bi en lutte greco romaine et lutte libre ci Égypte ba pare ñëw dorat Égypte en football don champion d'Afrique jël coupe d'Afrique kon euh, nu ngi ñaan rek yàlla nañu yàlla gën a jàppale dimbali ñu quoi. di ñaanal bu baax euh, lions yi nga xamante ne ni ñoo war a daje ak seen i di Égypte di leen ñaanal ndam di ñaanal réew mi ndam ndax tamit réew mi soxla na ko euh, arène nationale bi bi ko état defalee dafa am ñoo xam dafa mel ni bëgguñu gis làmb di am lu baax moo taxoon critique yeeg lépp papa ñu di ko dégg. waaw mais da ngay dem sax en. ñu ngi naan làmb ji ñi mérito wuñ lii. mérito wuñu loolu ñoom ñoom ñoo ko mérité wul parce que ñoom ñoo xamul. parce que tey bu ñu leen bàyyi woon tey ñoom ñi koy wax am na leneen lu ñu fa roon pour def ko fa am na leneen lu ñu fa roon pour def ko fa man moment bi may bëre ji dem di jëli médaille d'or yi mais foofu tey ñuy wax naan arène national ñëw ñu di ko doon critiquer fan la ñu nekkoon ñooñu fan la ñu nekkoon parce que ñoom xanaa kon bu ñu doonoon président du ñu ko fa defar parce que tey ñun ñi nga xam ne ñi tey ñu président suñu doole la ñu am ay anciens combattants lañu dem taxawal réew mi. ca Yougoslavie ca Bulgarie ca Roumanie Union soviétique kanada France Algérie fa la ñu taxaw fa ñu tëgg na national ici drapeau Sénégal xanaa kon ñun ñoo leen tane te kenn fayuñu ci dërëm. te loolu yëpp defal ngeen ko réew mi. defal naa ko réew mi damm sax def naa ko ci Algérie ñu wutal maay béykat tabax sama tànk ma wàcceek moom Paris fanaan ba seet ñu soog maa indi indi fii Sénégal te aw ma ci dara. di lancer un appel fort tamit. ki nga xamante ne nii ndeysaan muy ko baax euh, monsieur Matar Ba bon bu ñëwee ci sport ba léegi wax dëgg yàlla mu ngi fédéré bëggul gis dara yàqu. waaw mais grand champion yi nga xamante ne ay ancien gloire lañ ku ñi nekk ay charge ñoom dañ leen a war a jël en charge sax état dafa war a am sax loo xamante ne nii daf leen koy yoreel chaque fin du mois ndax fu nekk dañ faa dem taxawu fa réew mi ngir rek réew mi. ki nga xamante ne nii day joxe bakkanam ak ki nga xam ne day joxe dooleem ndax réew mi bu gaañu jotee mu faatu ndax réew mi ñu kenn mënu leen a fay te ku mel ni Djily Boston mii ci ñooñu la bokk. waaw xam nga tey am na mbër yoo xam ni tey bu ñu masaan wax ne kaay leen dem représenter les couleurs nationales dañ naan ñun bëre boobu dafay gaaw a damm nit dafay gaaw a gaañ nit effectivement c'est vrai ñu demee du ñu dem waaye man damay dem keroog ba ma demee Algérie ñëw fii samay bokk dañ ma ni bii bëri da koy bàyyi day yàq sa carrière ma ñaan ci kàttanu yàlla yéen tamit sëñ Babacar si ndax deux ba deux ans la deux yi ba mu ñëwee dellusee mais fekk na ma wér pi bari doole ñu ne ma ndax dem ma ne waaw waaw damaa dem au lieu benn médaille ba ma daan am benn médaille la amoon Algérie bii ñaari médaille la am médaille d'or ba ca euh, Égypte médaille or argent. muy loo xamante ne nii réew mi rek moo ko ko jaraloon. <laughs> Eh, ñii comme li may comme li may wax rek ñun mënoon nañoo bañ a bañ a wax dékk ko suñu micro mu rencontré ñu histoire làmb ak fi nga xamante ne nii moom moo di jaar-jaaram lépp ndax ñii ay bibliothèque lañ ñii ay géej lañ ci wàllu li nga xamante ni moom moo di sport ak di làmb eh, eh, mais papa ndax mën nañoo xam lan mooy indi turu jéeri Boston bi Boston. waa jéeri Boston dafa am sama benn xarit boo xam ne bii États-Unis la ñu daje woon américain la mais mi ngi dëkke Boston ñu mu ne ma nag dama niiroo ak moom. ma xool ko ma mais bi effectivement boo ko xoolee da ngay gis ni dañu niroo quoi ba ci sàkkale yàlla ak yooyu alors nag euh, mu ne ma euh, léegi euh, comme Pape Diop laa tudd Pape Diop Boston la may woy hmm. daal di ne comme Pape Diop jéeri lañ ci teg ñu ne jéeri Boston loolu mu indi tur woowu waa jooju topp na ba ba aéroport bu jëtti États-Unis nga xam ne def maa xam jëndal ma lu nekk nag bi may ñëw ay équipement lu ne la ma jënd ay dàll ak lu ne ndeysaan may bindanteeg moom di bindanteeg moom waaye xam nga temps bi rek na mu demee quoi ma daal di xaw a arrêté xam naa looloo da indi sax suñu réeroo waaye li wóote leer mooy jéeri Boston yi foofu la jógee nag sans benn rakku papa nag moom itam dëggal loolu kenn dootu mooy Pape ji lu dul Pape ji Boston wala jéeri Boston donc kon bi may jógee euh, euh, Roumanie Euh, te bëre euh, bëre boo ma la wax ak diwlin bi euh, mais bi ma bëree ba génn benn waaye daf ma ne yow seen dëkk xanaa mu ne ma yow boo demee ku bari xaalis ngay doon di nga am ay oto di nga am ay kër parce que vraiment champion bu mel ni yow jafe na. Égypte bi ma jëlee médaille d'or bi loolu la ma seen entraîneur boo demee Sénégal di nga am kër di nga am oto di nga am tout waaye mënuma la ni ak li ma ñaata médaille noonu bu yàggul laa jógee Italie. bu yàggul la djégué Italie ñu némé ma directeur technique jox ma ñetti trophée ak ñetti médaille d'or néma bi ce président de la république lañ ko jox bi ce ministre des sports lañ ko jox bi yow ya ko mom mani ni déeta man len waw su ngeen ma defee fi directeur technique en lutte gréco-romaine pour sama ñew ñu daal di may defal nationalité italien sama carte d'identité italien ngi ni ak carte de séjour ak carte sanitaire fuma dugg ci Europe damay faju li làmb mën bëri na. li mën bari na mais nul ne prophète chez lui parce que waron na doon bu yag bi que doon naa entraîneur national. kon bala ñuy def ken ñi nga xamni ma leen fi jitu ñu def leen directeur technique def leen ay entraîneur man lañ ko waroon a def waye xol fa mako yalla yàlla directeur technique ci Italie. parce que réew mi ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa axlu ak ñi bëgg sport ñun dañ la nangul sax xam-xam même buñ la deful directeur technique.

parce que itam loo doonul taalibe mënoo doon sëriñam mais ñuy wër saabale yi di wax mais li ci ay mbër matul ñett wala ñaar ay boromi karawaat dong nga ciy gis ñoo xam ne ñi musunoo daanu musunoo musunoo tëb nga ñëw jël leen dégg ko ñu riime table yi mat cinquante personnes ñu naan kii moo yor lii kii moo yor lii kii moo yor lii kee moo yor lee kee moo yor waa ñun ñi nga xam ni ñii nag dégg ko dañoo xam ci bu neex xam ci bu naqari tey bu ñu doon euh, bu fekkoon ne ko ah, ku doon champion d'Afrique ay yoon yoon dangay ngay woote président de la république mais candidat lay doon candidat lay doon tey bu fekkoon dafa am ay galon ñu ne kii général la war ma général lay doon parce que li ma fi def ci lutte olympique dafa naa ni kenn du kenn kenn kenn mënu ko natab ndax kenn kenn mënta natable sa dayo fi def parce que fi ma ci wër dafa dafa dafa bari réew mooy wax rek dem naa ba nga xam ne bii damaa war a ngénte ginnaaw suba sama doom équipe bi war a dem au championnat d' Afrique ministre bi wala ma ñëw mu ne ma indi sa passeport ma jox ko mu ne ma ngénte li bàyyi tale ko ak ay nit mais yow il faut nga dem parce que yow la ñuy teg suñu loxo ci yow. te entraîneur parce que amoon naa ñeenti at entraîneur amoon naa entraîneur du Sénégal muy Youri Niang ma amee bu France muy Rochelle ma amee bu Roumanie bu Roumain benn romain bu ñuy wax Ifter ma amaat beneen entraîneur. bu ñuy wax euh, euh, Risto ma nga ma ma nga ma nga Yougoslavie maamaat beneen entreneur bu ñuy wax Zowaki ma nga Maroc man fi ma jaar sama trajet dafa wóor moo tax làmb ji daanoon na dama doonoon ko naqaree daan làmb ji boo dee wax ku naqaree daan dañu naan Pape Diop Boston a gën a naqaree daan ci mbër yi. am na ñu naan Djily Boston gudd réewul mais naka la defoon ba compli ba ba mën a indi coow ci làmb quoi. waaw parce que xam nga dama gëm yàlla gëm yonent bi gëm li nga xam ni moom laa bëgg muy làmb ba pare nag di ñaanlu. ndax sëñ baabakaramul moroom morom li wóote leer mooy kenn ku nekk da ngaa war a naw si sëriñ koo xeeb sëriñam mu xeeb la koo xeeb woppam mu xeeb la koo xeeb bisam mu xeeb la waaye man sama bis dama ko teg ci loxo yàlla ak yenn bi ak sëñ Babacar Si Alaaji Maalik bi ci des sooy ñaan ci yàlla da nga koy jaarale ci bunt bi ba def jullit jaaral ci Muhammad ndax mooy ki nga xam ne ki mooy bunt bi say ñaan àgg ci sunu borom sunu borom boo àndeek moom doo tiit doo rafle mais xoola mbër yi ma fi bëree lépp ay cent 120 130 kilos ba ci 140 booy remarque bi may bëri moom 140 kilos la ma ñëw di def 90 waaye ku déggul soxee da matul 5 minutes loolu mooy làmb. parce que da ngeen daan bëri lépp fii rañaan lépp. waaw parce que man euh, daanaa la dóor sax ngay poids lourd ma gëdd la nga daw di ñëw ma feltoog yow jël la yëkkati la nga diis ma wër la ndomb dëj la dem sama yoon. wala boobu technique. dégg naa la nga di ko wax keroog bi ëmm seen di dajeeg la dëgër nga ne ko kenn santu la nga ne ko sojjët jëlal tànkam bàyyi ko fa wala nga dëj ko. mais ko ko ba bërki dem bi mu ñëwee fii toog fii la ëmm seen toog bi mu ñëwee fii wax naa ko ko ëmm seen a gën a naqaree daan ci mbër yi attention mbër yi ëmm seen a ci gën a naqaree daan ak booy ñang ñi ngay xeeb ama du li ñuy samay doom mais bëre dafa sax ci ñoom dañoo am façon bëre. mais xoolal am na mbër yoo xam ni tey kon moromi njoge yi boo bëree 3 combats 4 combats rek ñu daal lay defal affaire nga del si waat di jëlaat revanche mais xoolal njoge komba combats 8 victoire benn defet kooku kay am na lu mu jàng saal bi daal ngi ni ku ci ñëw déglu ma doole ji nag mën naa déplacer waaye xam-xam bi mi ngi fi de tey théorie ak pratique dafa am te damaa def théorie def pratique te pratique bi yëpp. saal bi cosaan la ñi fi jaar ci ñi nga xamante ne ay champion bari nañ. ndax ñun comme ni ma leen ko waxee dañoo nekkoon ay xale waaye daan taxaw ca buntu ba di yëndu ñoo xamante ne ni ay champion ñoo fa doon nekk ay ay ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom baabooy mboolem kuy champion Pikine mbooloo gi nga jaar bu 17 heures mosaana jot saal ba da daan fees dell ba kenn du fa xaj ñun ñu nekkoon ay xale dañ daan yéeg ci kaw garab yi di seetaan lu mel noonu nag bu ko réew mi amee waa ax lu làmb am ko dafay jar ñii ñu delloo leen njukkal ki leen mën a delloo njukkal nag en commençant par l' mu ngi def nag lu mu mën waaye l' état na gën a góorgóorlu ci ñu mel ni Papa Diop Boston ministre des sports Matar Ba na gën a góorgóorlu te bàyyi ñuy xel ndax tamit jaay laalo fa cere ñore waaye borom costume yi ba ñëwee ci làmb ji ba léegi encadré li nga xam ne moo di làmb làmb commencé naa am sooxe te nit nag bu fekkente ne ni dara dafa am te duutoo ci baaraam saafara du mën a am waaye CNG avertissement avant nga dugg ci lamb ji muy benn avertissement nga dugg ci lamb ji sa ciumikaay nga yéex paré muy deux avertissement koku bo ñëwé di lewto buñ la joxaté troisième avertissement moy sa lamb yàqu waaw euh, moo tax loolu euh, ki nga xam ne kii mooy CNG bu bees bi maa ngi koy sargal di ko wax dalal jàmm waaye di sargal nag la président Alioune Sarr Alioune Sarr docteur Alioune Sarr nit nga koo xam ne kii eh, ku jare félicité la ndax ku am taraanga tey ci làmb ci mbër ci moom la jaare man bëri naa ba pare ñu ne ma borom làmb jëne ma ama xaalis bëri naa ba pare mu ñëw jooy ne ma li ma yoroon amatuma dara làmb ji dama perte ma ne ko garaawul mais yooyu yëpp Alioune Sarr ko donc kon euh, may encourager surtout le ministre Matarba, euh ci fonction yi mu nek président diko renouveler yalla nako yag renouveler a renouveler ndax ko gis tay Coupe d'Afrique bi ak yenen ak yenen yi nga xamni mom la ci def vraiment Matar mang koy féliciter di féliciter nak kilifaam le président de la République di wax ni xamna ni ne jombul du yag dina gisee ak mom inshallah parce que ku bëgg sport la te bul ni euh Euh, le le président de la république euh, euh, Macky Sall nekkul woon Pikine daana ñëw Pikine parce que bi ñuy bëri ñun ay mbapat Macky Sall da daan ñëw Pikine ci kër nijaayam fii ci Waxinaan mook far ba Ngom di seetaan ay mbapat fa la daan vacances kon ñoom Timbo kon donc kon xam nga ne Macky Sall xam na ne làmb ji demee. boo ko laajoon tey mbappati ñoom Pape Diouf ak euh, ba Ngom nga laaj leen ko daañ la ci wax lu bëree bare bëri bëri bëri yaa may dégg ah même ba ci mbappati ñoom euh, xale yi ñoom ñoom euh, kii bi ñuy sog a député sax ñoom Farba da leen doon seetaan ñoo ama seen donc kon làmb dafa doon loo xam ne lii maa ngi wax sama morom yooyu nga xam ne ñoo génn àdduna yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla yërëm ndax ko daan mayenteel ay millions ba tey gisatu ko gisatoo ko bu xam ni leen dafa am àdduna otoraay buy daw la ñëpp a ngi ci biir ku àgg sa gaar rek da ngay wàcc. dëgg la mu ngi noonu yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan en direct sur la Pikine TV tey ñu ngi toog ak un grand champion koo xamante ne nii waxtaan ak moom kenn du si doyal euh, ndax bu lay wax si làmb doo bëgg sax mu pare waaye tey fii.